kilifte foog sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des mourides sëriñ Abou Mouhamed Mbàkke xalifa sëriñ Mouhamadou Mamoun Mbàkke borom Daaru ci ndigalul sëriñ Sidi Mbàkke xalifa sëriñ Amidoun Mbàkke ibnu Elaaji Mouhamadou Mbàkke borom Daaru Salaam bi lëkkale daayira yi tooli àllarbay sëriñ Amidoun Mbàkke ñu ngi leen di jottali ay cant yu ànd ak ñaan ak ngërëm yu bàyyi ko ci sëriñ bi jëm ci njëwriñ yi membar yi góor ak jigéen ci mbooleem ndigal yu nu weesu rawati weeru koor ga ak màggal yi fi jot a jaar yépp gannaaw ngi soññi jëwriñ yi tooli àllarbay sëriñ Amidoun Mbàkke membar yi góor ak commencé waajal màggalug Daaru Salaam dimanche fukki fan ak juróom-ñeent ci diggu tabaski fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin 2022 dayre tolli àllarbay sëriñ Amidou nag war a jëbbali seenub liggéey bu ñu nee suba la màggal ga samedi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin 2022 bu takkusaanee ñëpp dajaloo ci kanam sëriñ Sidi Mbacke miy xalifab sëriñ Amidou Mbacke jébbal ko liggéeyub mbooloo mi yeesal sunu jaayante ñaanal ko sàkku ci moom ñaan daal di futti ko ànd ak moom jàpp ci liggéey bi yendoo ko fanaane ko ba asamaan set sëriñ bi sant mbooloo mi soññi leen ñaanal leen yowi leen ñu ngi soññ nag jëwriñ yi yi bëgg jëwriñ ju ci nekk soññu ña mu jiitu ci cotisation yi kenn ku nekk la ko ca war na ko daal di teel a def ñu dajale liggéey bépp bala ñoo àgg ca bis ba ñu ngi tàllal loxob jaayante ngir ku ñaan ñàkk boo jëndee am xam ngeen ne cotisation yii dañu koy dajale di ci dimbali sëriñ bi ne kenn ku ne tànn la mu gën a bëgg mu ñëw jaayanteeg maam Anta Mbacké jaayanteeg sëriñ Mouhamadou Mamoun Mbacké jaayante ak sëriñ Amidoun Mbacké teg ko ci loxoy sëriñ sëriñ Amidoun ku farlu am ca yéene làq waan di jàng xuraan xasiday siyaare njabootu Seex Anta di berndey waare Seex Amidoun moom sayxi Moodu Maamun nan dem siyaar njaboot gaf sàkku fay ñaan sañ si di Mbàkke taw ba def na njàmbaar sàmm na reggal ma yu réer akum ruur ku dem màggal siyaare si di gaawaan na yàlla faj ajom musal ko ciy noonu la qualité fait la différence